برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نيوينان ajib duaahum wa ajil billadi talabu bi jaayi yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar Cheikh Ahmed Tidiane Aliou Cissé imam bu Medina Baye mu fas yéene yëkkati ay kàddu jëmale ko si mbokk yi ndax waxtu yi ci jotee xibaar bu amee ay kàddoom la ñuy taataan mu baaxee ko mbokk yi imaam ñu yaa ngi sa alfayda bisimilah alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين وتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين gannaaw sant yàlla ak julli cirant yàlla mouhamad sal allahu alei wa sallam aa ngi nuyu mbokki julli ñëpp ci fii ci medina ak ci kawlax ak sénégal lépp fi mën a nekk ci àddina itam di ndokkeel ñëpp ci at mu bees mi ñu dugg muy weer itam xarit yi tàmbali ci dimas ji di ñaan yàlla mu def ko muy atam jàmm atam ubbeeku watam yëkkatiku hmm. ñeel jullit yi ñeel ñi dëkk réew yëpp def jàmm ci réew mi di leen jox benn uh, xibaar rek mooy ne fii ñu toll buñ fa an baay dafay ray nag mos mucc naag boobu nag li mu tegtale mooy lu ci nit mos rek yow mucc nga ci lépp lu ñu ragal tam nar a xew ci at mi ci day mbetteel yeeg feebar yu gaaw yeeg accident yeeg yëpp ku ci jël dara rek mos ko yàlla musal na la ci loolu nag at mu jotaan bu lu mel ni amee dañ koy def te fi mu nekk nii ku nekk dégg na yëf yi ni mu jaxasoo ak réew mi ni mel te doomu aadama balay tal leneen rek dafa mucc ba pare jàmm daal boo ko amul weneen soxla mënoo ko am wala ngay am ñaari soxla dafa fekk nga am jàmm loolu nag comme wér na ne dafay may jàmm muy ndigal loo xam ne lu wér la lu jege ci Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu doon ko def ñu def ko am di ko def boobu ba léegi ñu xamal nit ñi ne danañ ko def samedi bii di ñëw buñ ko defee samedi dimanche altine di tam xarit bi képp ku ci bugg daal bisi samedi bi danañ ko def bisi dimanche danañ ko def kilo bi ñu ngi koy jaayee sept mille francs ku bugg génn wàll kilo trois mille cinq cent kuy bindu itam nanga ñëw suma kër ci Abdou Karim Cissé nga bindu jox ko sa xaalis bu ko defee bu ñu rayee ñu bindu ñëpp leen jox seen yàpp ñu yóbbu nag numéro téléphone am ngi nekk 77 101 25 98 101 25 98 képp koo xam ne itteel na la nga oote ci numéro bu moom mu ngi amee carnet nga bindu jox ko sa tur jox ko sa xaalis bu samedi jotee loo ci bindu boo ñëwee ñu jox la ko ci biir jumaa ji ñi nga xam ne itam ñoo koy amee mooy Seydi Cissé ak Abdoulaye Cissé Abdou Karim dimbalante ak ñoom asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان